asalaamaaleykum mbokk yi lu bees épicerie al mu barak ñëw na ah, waaw waaw boo dikkee di nga fi fekk pâtisserie épicerie charcuterie ak cosmétique mu ne lépp loo bëgg ci mbirum épicerie ñëwal épicerie al buqatul mubarak da ngaa bëgg ay fruits ñoom pom ñoom banaana ak ñoom seen ma ne da ngaa am màggal wala nga am événement bu rëy bëgg ay boissons wala ay fruits ci njëg bu xéwalee ñëwal épicerie al buqatul mubarak bu dee ci wàllum koor gi ah indi nañ bagage yu mucc ayib da ngaa bëgg tàndarma wala nga bëgg jus am nañ fi ay jus naturel ay saucisson mën na la yii yëpp boo ko bëggee ñëwal épicerie yi albuqatul mubara waaye des na boo dikkee da nga fay fekk ay viande waaw waaw loolu mooy ndawal wala ay jën fruits de mer wala crack mën na la lépp loo soxla ci wàllum pâtisserie épicerie charcuterie ak cosmétique cosmétique waaw ay diwu yaram yu baax si yaram ak ay parfum épicerie albuqatul mubara boo bëggee ñëw ci épicerie albuqatul mubara bu dee ci jumaay Tuubaa nga jugee ñëwal ba ñaari étage boo doxee tuuti nga xool sa ndeyjoor di nga yi 55 81 00 wala 76 661 90 15 al buqatul mubarak moo leen di ñaanal kooru jàmm